ngay di leen bakkaaw wala bànjul nga ne bëri bi fuuf leen ñuy gaaw a nelaw caaxi di booy ñuy dugal naan gën a neex Gambia Football Federation Gambian Ministry of Sports the government of the Republic of the Gambia fi mu toll is high time infrastructures yooyu ñuy def nañ ci góorgóorlu ba am ci ay fields yoo xamante ne omni sport lay doon di nga ci def sa football def sa basket volleyball handball ndaxte loolu luy dundal réew la lu koy demale kanam la waaye luy dëgëral suuxa say ndaw la ndaxte doon duñ tayal dañuy jàpp ci dara ba feebar du bari kon nag ñoo leen di ñaan seen liggéey rafet waaye dolli leen yokku cere dolli ñeex yàqu dara day tax biiri fees xale dal te li ñuy gis-gis gi leer kon nag président Adama Barrow mu lay ñaan stade bi si système Jawara la please ni nga doole suñu rôle modèle gëm naa ne buñ la waxee léegi nga dégg ko di ko mën a def stadium bu Airtel Bouga bu nekkee fii ba Basse nañ ne Gambia they have a new stadium thank you so much. Euh, kon nag duñ def rek lu mooy euh, amal li nga xamante ne nii euh, mooy Birthday Wish. ah ki nga xamante ne tey nag moom lañuy ñuy wish sama doom waaye tamit sama papa ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Makki ibnu Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu ah, kii mooy Mouhamadul Makki Cissé di doom si Xadi Baaji Xadi Baaji di suma mbokki taalibe di suma xarit suma àndandoo macha allah ah, kon Mouhamadul Makki Cissé lay ziyaare sanga bu tedd bi sama pap sama xarit macha di la ñaanal yàlla gudd fan wér gu ànd ak wér le ñaan yàlla aar la sàmm la defal la jàmm nga toog ba teg sa yaay ak sa papa kaala màkk barke alxuraan karim xadi baaji waaw menn Mouhamadul Makki siise ngaari njar meew maa lay ñaanal yàlla gudd fan waaw ah, sama doomi bopp boobu sama doom la waaye sama papa lañ ko tuddee mm. Mouhamadul Makki ibnu Ibrahima Niass kooku sama papa la ca Medina Baye ok ah, maa lay ziar bu baax a baax ñas Gumba Abdallah di ziar sa doom ah, Abdallah di ziar Baye di ziar Makki how old two years la moo am two two years la moo am tey ñaari at kon ñu ngi koy ñaanal yàlla rek mu toog ba teg yaayam kaala mag nekk mag boo xamante ni dafay dippi toomaayam ci lépp nag jikko bi jàng bi baax bi ak lépp macha allah ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax Mouhamadul Macky dundal lu bare bare bari si Senghari. ah Mouhamadul Macky happy birthday to you may you live to witness uh, witness many many more to come in good health long life and everlasting happiness. alamay sola sima ya bala jata kenda ya ni harje firingo. ni be dindi yala alamay futala uh, fondinke ya tum uh, um, temboto ni futata fondinke ya temboto fanan alama mansata laye ka alfate alfa buñaringo alfa horomaringo alfa mi yalon komin for Abekela exemplary well, um, uh, in the world. Happy birthday to you, dear. Live long, live long, live long, child. Sisé ñaari ñam ñom to magalas. Ah Mohamed Sisé. Ndesa. Baaji besel muso moy sa yaay. Khadijatu Baaji. Yow dundal tey may di mbaawaan dundal màggal age grace amal jàmm amal ñam doonal mag mu am ñam bi jaay Sidina Muhammad ki la tuddee turandoo day woy boromam da koy la koy jël ci juróom-ñaari jikko Mohamed maa ngi Cissé la ñu tuddee maa ngi Niass la ñu tuddee Niass Kumba Abdallah Samba Thioro Fall Samba la Jaay Jaay borom faydu gi eh borom Medina Baye ca Kaolack. ndeysaan. kookoy maamam di baayam baaye baay baaye maam baay mooy solution kon nag Mohamed dundal. Happy birthday! dundal doom doomu ñëpp. <laughs> da ngaa suñu sa baax yaay baaxi baay. doomu ñëpp wax dëgg Happy uh, birthday to you. Definitely. Uh, this is just a quick reminder uh, to our wonderful viewers. You are still watching the, your favorite program that is normally brought to you by Sahel Network TV, Banjul the Capital. the number to call if you want to be part of this program or you want to send in messages plus 220 286 0150. Anywhere you are in the world, you can communicate with us. Thank you.